maa ngi fi. bi ma mujjee génnee donne-moi la tudd. donne-moi. waaw pourquoi donne-moi parce que xam nga àdduna euh, échange la euh, moi j'aime bien donner j'aime bien partager quoi parce que bu ñu nee nit l'être humain humanité ça veut dire lu rafet lu baax xam nga luy neex ci xolu nit ñi xam nga moo tax donne-moi toujours ñëpp moom la ñu war a def lu mu waay mën a defal moromam rek na ko na ko na defal il faut toujours donner et il faut donner le meilleur de soi-même quoi pour avoir un monde meilleur. waaw sama parcours bon gudd ramna xam naa dama koy abrégé peut-être <laughs> dama koy résumé donc euh, dans les années 90 la embrasser musique bi commencer di jàng guitare xam nga ñu initié ensuite bon ma avec un professeur de jazz Djibi Badiane bon moi, mooy initié si côté boobu di ma jàppale xam nga pendant quelques années ak ensuite j'ai rejoint les groupes joué avec Mapenda Seck Takander, man ak ñoom Baba Amdi ñoo doon joué donc ensuite j'ai euh, joué avec les artistes yu bëri Assane Ndiaye Titi kërëb kërëb ak c'est groupe album yi yëpp joué donc euh, bon en 2009 j'ai décidé de def carrière solo di def musique en tant que musicien de variété C'est ce que j'ai parcours En ba 2013 ma def single bu Sophie Sissé, sama réalisatrice manager euh, ñu defaat ko encore en 2014 di préparer beneen di préparer aussi album bi mais euh, sama sama objectif ci album bi mooy je veux faire euh, quatre reprises ak quatre ou cinq compositions pourquoi parce que dafa am des musiques yoo xam ne dafa ma marqué ci sama vie moo tax ma reprendre ko ci sama album musique yi ma marqué comme When I Fall in Love ma defoon ak Donne-moi bi ak euh, am na musique Youssou Ndour aussi surprise la bëgguma ko wax léegi ak beneen Shadé Ado quatre yooyu laa def parce que daf ma marqué mais ça a marqué les mélomanes en général dans le monde c'est des musiques yoo xam ne ñëpp la neex xam nga boo nee Shadé ñëpp ñëpp ñëpp dañ dañ ko bëgg boo nee Youssou Ndour ñëpp ko bëgg xam nga ainsi de suite donc musique yooyu nga xam ne vraiment dafa marqué mélomanes yi marqué ma j'ai tenu à le faire dans l'album et puis style bi may def dafa méngoo ak loolu quoi waaw en général thème yëpp il faral développer surtout euh, générosité euh, manam euh, amour parce que àdduna mbëggeel la ak yërmande xam nga ak lou rafet ak lou baax rek xam nga parce que nit loolu moo tax yàlla bind ko daal parce que yàlla nit la gën a bëgg si lu mu bind moo toujours rek man luy jëriñ nit rek loolu lay gën accentuer samay thème ak yooyu daal Titi waaye ñoom li ma gën a marqué si ñoom mooy kenn ku nekk ce fut vraiment une belle expérience bu ma jaar ak ñoom parce que Mapenda mun naa wax ne moom a yar sax parce que si moom laa njëkk a joué nii groupe nii euh, mbalax en live ak yooyu donc mën naa wax ne sax moom moo ma yar quoi euh, donc euh, ñu jaar fu bëri mu nekk grand bu baax aussi bi ma demee ba nga xam ne amatuma jot pour jouer aussi j'ai j'ai fait appel à un autre guitariste wan ko morceau yi ñëw ne ko Mapenda vraiment je veux arrêter mais y a un remplaçant mu ngi nii mu ne ma donc vous n'avez qu'à répéter nga won ko ma won ko mu dem mu remplacé ma ma dem bon titi aussi nekk ma fa fixe parce que man damay toog sama kër rek des fois gars yi woo ma ñoom seen gars yi manager yi ne ma guitariste bi il est absent ndax di nga mën a ñëw jouer bon comme man d'habitude album yu bëri bu génnee. waaw. waaw en tant que guitariste waaw tout simplement dama leen di jouer parce que léeg-léeg xam nga day dañuy jékki-jékki benn musicien bi absenté wala mu tukki wala yooyu donc ku si ku si commencé woo rek ma ñëw jàpp jouer la après bu ñu paree je continue mes activités quoi noonu lay demee d'habitude bon pour dire vrai moom la musique ne nourrit pas son nom wax dëgg yàlla moo tax léegi rek maa ngi waxtaan ak Sophie euh, si affaire société de gestion collective bi nga xam ne bi actuellement moom la ñu mettre en place mu nekk loo xam c'est extrêmement important pour les artistes parce que artistes yi loolu rek la ñu am maanaam les droits voisins les droits d'auteur ak yooyu loolu rek la ñu am parce que artiste amul possibilité comme ki nga xam ne dafay liggéey ci société dem banque def prêt jënd oto wala nga dem jënd kër wala yooyu artiste œuvre bi rek la am donc euh, affaire société de gestion collective boobu damay ñaan yàlla euh, mu gaaw entrer en vigueur loi bi entré entrer en vigueur euh, pour le bonheur des artistes mais, mm -hmm. mais elle est l'art, l'art ne nourrit pas son homme. waaw promotion bi ni ma nar def moy comme ni ko démarré rek parce que guéné wonna benen single on a fait euh, la vidéo def émission télé yépp presque bon guéné wat nañu benen li c'est dans le cadre de la promotion aussi xam nga ñu ngi préparer yenen émission télé ak yoyu bon pour def promotion bi ñu ngi préparé beneen troisième vidéo bo xamné déjà jox naa Sophie moom déjà mu ngi commencé di écouter di déglu musique bi pour ñu préparer parce que dans un mois rek dañu bëgg a def beneen parce que aujourd'hui boo génnee album tam ça sert à rien da koy dem yóbbu gaay mais ça sert à rien parce que mënuloo ko jaay mënuloo ko jaay single bële on avait tiré des CD en n'en plus finir finalement 4000 francs lañ ci récolte non parce que lu si ëpp da koy mayee sax ñi la xam ñëpp dañ lay ñaan si CD yi ñeneen ñi ngi ko jox ñu jaay ko bon doo comprendre bon puisque amul Khalis, moi j'ai décidé d'investir d'abord bon à long terme moom ma récolter moo actuellement ñun dañuy investir rek wut non yombul xam nga toujours musique mom, loo gis tout début est difficile bi démarrer xam nga boobu euh, dama doon jàng bi may aussi dama doon dem je fréquentais les grands comme ay ñu mel ay Lamine Faye dama doon dem je passais la journée bunte këram ni mais ils étaient très sollicités moom donc des fois ma tok fa le matin 9h ba 20h diko xaar donc lay guen juste ñun nuyoonte rek mu ne boy ok tu repasses ma dem ñibi ñëwaat et tout ce truc là bon légui bu ma gisee sax dañu nekk di ak yooyu xam nga il faut que tu viennes profiter de mon expérience parce que sama boy nga ak yooyu quoi bon sinon aussi euh, di jouer des fois mu neex des fois du neex yooyu yëpp dafa am xam nga.

lépp lu war rafet rek si aar bi def nañ ko ñun dañuy mais man côté expliquer Sophie keroog rek man je suis fidèle du tromper sama jabar jamais man aw gel du ma gel dama rek mais je ne trompe jamais ma femme du def affaire de drague ak yooyu parce que. loolu du question sama jabar sax laa fidèle mais si yàlla laa fidèle parce que dama ko gëm te gëm naa ne ma am jabar ba pare di def leneen dafa mel ni di narge yàlla wala yooyu te ñemewuma loolu raison boobu moo tax <laughs> non mais xam nga acapella single bi moomu jigéen ne nii xam nga musique instrumentale la moo tax mu dëgg ma la ne acapella mais dama lay dencal surprise bàyyil bi ñuy fare génne nii bu pare moo defal la acapella <laughs>

ma ne ko noonu amul benn feuille boo gis seen kër noonu mu ne ma noonu gisuma benn feuille mu ne mais feuille boobu li tax ngay insisté feuille bi lu si nekk ma ne ko noonu bàyyi la noonu garaawul am problème waaw IGFM vraiment nekk na groupe boo xam ne euh, groupe bu groupe bu bu may rafetlu la di leen féliciter bu baax ci seen liggéey parce que euh, même avant may may ma leen di xam sax je vous ai connu à travers mon ordinateur may gis publicité yi à la télé ñu koy wax ak yooyu ma dugg mais j'ai vu que c'est quelque chose boo xam dafa développé ba pare c'est intéressant parce que il parle de tout lépp luy actualité bu war a intéressé nit rek mu ngi ci biir donc mu nekk loo xam ne lii en un temps record mu mu ñëw rejoindre mel ni ay Seneweb par exemple xam am na doole boobu aujourd'hui bokk na ci site yi nga xam ne c'est les sites les plus visités actuellement au Sénégal donc ma leen di ñaanal yàlla barkeel seen liggéey parce que vraiment vous êtes une équipe boo xam ne wax dëgg yàlla xaw ma ku koy manager mais jàmbaar la. Euh, merci Ndiaga ñu euh, euh,